saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa waa géejawaay ak vip yi fa am combat mbooleem vip yi am combat te nekk foofee ca géejawaay ñooñee la sunu làmb xëy fësal ne Balla Gaye 2 guy gi Abdou Diouf ba ci Sa Thiès ñoom ñëpp ami combat saison bii ñu dëgmal saison de tous les dangers lay doon ci géejawaay Balla Gaye 2 revanche sama Gris Bordeaux ku jàpp ne day yomb yaa ngi nax sa bopp guy gi digganteem ak rëg-rëg tuq su bënn saañ ba réer lay doon Sa Thiès digganteem ak a lijjanti waa am yomb du sedd kenn du ko lijjanti ñeneen ña seeni jàpp mooy ñaari mbër yi dañuy bëre seen combat de la dernière chance carrière Bombardier bu jógee ci digganteem ak Eumeu Sène mooy jeex na tàkk Gris bu jógee ci digganteem ak Balla Gaye la cay des dootul bari te ñaari mbër yi li ñu bëgg mooy bu ñu demee bay toogit ñu retraité ak i victoire mboolem ténor yi fi nekk meenam Balla Gaye kese moo ko réussir li ni mel la Gris bëgg li ni mel la Bombardier bëgg ka bëgg ko ko puus ba mu dégg daal Lac tax nañu war ko puus malgré talent bi mu amee moom Moussa day yéeg ak a wàcc victoire en dents de noonee sax la ko journal ba dippee journal ba rax ca doole ne Moussa bu bëggee tàkk carrière am dew ba faaw faaw mu bëri ay combat de taille gagné ko par li ni mel bu ko defee mooy dem na kenn dootu ko téye ñay dem te kenn du leen téye mooy espoir u écurie Yoff ya gannaaw Malick ak Modou Dia am na yeneen gone yu nekk ci yoon 2019 ca départ ba 23 promoteur la ñu amoon bi ñu noppee 37 journée la ñu te ñoo ko séddoo ca classement ba Serigne Modou Niang moo jiitu ak 9 journée deuxième ex ba Fallou Ndiaye la yi daali ñi ngi Assane Ndiaye ku ci nekk ñetti journée nga am cinquième ex aequo Sidi la Jibi Ndiaye Lay Ndiaye Jey production ku ci nekk ñaari journée yeneen promoteurs yi ca des ku ci nekk am nga sa benn journée am na ca yeneen i yu des te Mara benn victoire 4 défaites Tapha Tine may leader ba saison blanche la def benn victoire ba nu am bay fëgala moo daan kayma seen ñetti défaites ya booy bawol 2 moo daan Zal Bambey bébé Elton daan bébé Lambaay caatu waalo daan ñagas puy 2 daan étudiant kii di alliance biram soose maane ak njaaytin kenn gisu leen Leer ñagas alliance ñoom kenn seenu leen loolee moo waral seen coach ba mbay ndeewaan ne musuma gis bilan bu bonee nii musuma ko